لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق الله العظيم sant ya Serigne Ahmadou Mbacké bu baax yang gel fi anda yàggal nga ànd ak wër li tax ma ma judo alxuraan dama dama dëkk Mauritanie juddoo fa kerim fa suñu village yëpp ñu xam ne si alxuraanu karim dañ lay jàng alxuraan ba nga mokal ka ñu jàng la téere xam-xam yi ba ba nga ba nga mokkal ka ñu bàyyi la du am benn jeexital si yow Ahmadou mooy defar nit barki Touba mooy defar nit wallahi azim màggal 2009 laa njëkk gis vidéo am màggal 2009 laa gis vidéo am si sëñ Mamadou bu nekk Canada wax jeexi jeexitalam boobu muy wax si moom laa ko njëkk dégg yàlla na fi yàlla yàggal bu baax di ñaan bu baax nga dimbali ma ba Mauritanie gépp ànd di ñëw fii ànd ak man may def ay convoi nit ñëpp may sant bu baax di tuub bu baax si kàddu yi kaala gii dégg bés boo génnee adduna nañ la ko nañ la jiitu ci sa yaram n a na ñëw n i andi leen ko toog na ñëpp toog Ah! sama mbubb ma ginnaaw joxe ko Kaala man jox naa ko sama mbubb ndax Samb mii de ku ne Samb kan la ma ko kon yaa ma ko joxoon dama la bañ ñu gis ci nit ñi dégg nga jëf na kuy jëf ya ba leen fi ñëw. déedéet moom kay. ma ne bu kenn parce que dañ ciy bokk. dañ ciy bokk. dañuy raw Bye. ndijaay moo tax bëgg naa maa ngi ñëw yewee ko man la sëñ Mansour ndijaay moo tax kontaan naa lool bëgg naa lool waaw maa ngi ñëw yewee ko ah kon ma daal di toog rek ñëw bëgg naa de kontaan naa lool bari sëñ bi taalibe tiijaan nag xanaa day ma ne taalibe tiijaan xanaa su gëjee gis sëriñam war naa ñëw nag yéestu man day taalibe tiijaan dëgg laa de mais day doy nga ma lool ba ma la xamee léegi jàppee naa la ne day ñëw bokk Cheikh na Ahmed Tidiane pare loolu laa gis ci yow loolu laa gis ci yow de kon nag de nangu naa ne war naa mën a yeesu ci yow tey ndax su gëjee gis sëriñam war na nangu ne war na yées joxum man nag maag sëñ omor Gueye sama doomi bàjjan la mais yàqul ci yoonu wi dara de moom Njóobu Fay ak sëñ Omar Fay ñoo dëkk de ca kaw la ñoruñ ñu ci dara bu ma la bëggee gis ñoo may yombalal ma gis la ndax ñoo may jox paas ma ñëw maa ngi leen sant leen gërëm jàpp naa ne yéesu naa ci kanamu sama sëriñ waaw man dégg Maulana Cheikh na Ibrahima El Hadj Ibrahima Niass mooy sama sëriñ mais gëm naa ne day moom laa gis nii ci ci moom laa gis maa ngi tàllal samay loxo di la ñaan te yàlla ma tiim rekk moo tax ma xam li may wax dëgg la ci man maa ngi lay tàllal sama loxo di la ñaan ma ñaanal yàlla te yàlla rek tax. yow xam nga Cheikh Ahmadou Tidiane waaw ndax maa ngi janoog moom nii te nangu naa ne maa ngi janoog moom.

ndaw ji daal la ma ci jaaxal jërëjëf ndaw ji daal la ma ci jaaxal jërëjëf Mbacke <laughs> jërëjëf Mbacke bis bu ñu lay gisee rek yokku nañ bis bu ñu lay tudd yàlla mi ñu tiim xam na ne bis bu ñu lay tudd rek suñu xol day neex yàlla moo tax may wax billaahi wallaahi yàlla moo tax may wax maa ngi yées lu jàpp naa ne sama sëriñ moom laa toogat ci tarixa Cheikh Ahmadou Tidiane moo tax may yées lu ndax xam nga li euh, wirdu bi xam nga li mu wax xam nga bu baax wirdu Cheikh Ahmadou Tidiane li mu wax waaw soo ci jokkoo xam nga fan nga war ndax war nga tëbbuwaat ci beneen sëriñ bi mais na man dama la jàpp xam naa wér ni ci yoon wi nga bokk moo tax may may may tëbbu ci yow yàlla ma tiim xam na loolu maa ngi jéglu bu wér ci wax yow maa ngi jéglu Thank yii yàlla yokk njëggal ci yow yéen a sob nag waaye ndëri mii de soññ nanu de ma boolee buur bu tedd bi sama xel waxtaan rek laa doon dégg mosuma la gis ñëw naa kër Mbaye Fall benn yoon pour ñëw kër jaayante mais tey la ko buur bi yàlla suñu borom dogal si bis bu tedd bii maa ngi lay jébal sama bopp àdduna àllaaxira samay jëmm di jébbal sunu borom tey doon kootaay yonente bi ci yow ci bindee ko jigéen tey doon kootaay maolana cheikhul xadim ci ci bismillah faram bi toll ma tàmbalee ba àll ba léegi yow di nga xalaat sama kóllëre sama jàppal parce que ne doon ak njàmm rek ak la yow yow laa bëgg maa bëgg a fees dell ci yow mun nga lool de ne moom laa day xetul xadim bi ci gi

والوتر والليل إذا يسري هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا صخر بالواد وفرعون ذي الاوتاد الذين تغوا في البلاد فأكثروا سعوا فيها الفساد فصب عليهم فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرساد فأما الإنسان فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمني وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أكرمني كلا بل لا تكرمون الولا تحضون على طعام المسكين وتأكلون تراس أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتوتر الإنسان وأنى له ذكرا يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وساقه إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها خرجت الأرض أسقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق الله العظيم te gën a góor góorlu wala yàgg ci yàllante woon ma jiitaloon ci sama dund lu may fekk ci sama bàmmeel nanu góor góorlu xam ne liñ jëfal yàlla rek lañu am ci suñuy am am de waaw nañuy góor góorlu ci di jëfal yàlla te xam ne lool rek lañu am de maa ngi ci soññi sama bopp te di ci soññ ñépp de wax day téeréb suñu borom la alxuraanul karim la yalla nu sunu borom nak defal digg ak tab bu nu sunu borom defal tawfiq nu yafus nu yafus de nañuy dundal l'islam nañuy dundal l'islam nañuy dundal l'islam ci sunuy jikko ci sunuy kaddu ci sunuy melo ci juf jëf ñak wi nu yalla jox nañ ci jëfal yalla ñu ci kenn man yal yàlla yokk dimbali boppam loolu mooy dundal njàngalam sëriñ mooy liggéeyal sëriñ Tuubaa mooy loolu kenn ku nekk noonu na ci sax te na ci def yitte te na ci def faral noo ngi sant ñëpp nag ci yitte yi di ñaan sa borom tawfeex yi mu defal mu saxal ko musal nu ci ndox musal nu ci pakk yi musal nu ci musiba yi ak balaa yi yéene yi ñu fi yéene yëpp ak yi ñu fi fas yëpp ci yiw yàlla na ko sunu borom nangu te defal nu lu kawe sunu njort sant nañ ñëpp yitte yëpp gis nañ ko yitte yëpp yëg nañ ko muy góor muy jigéen muy mag muy ndaw ndax nun kat fu nu toll noo ngi ci liggéey bi ku yëg ak ku yëgul noo ngi ci noo ngi sant ñëpp nag ci seeni taxawaay di ñaan sunu boroom tawféex yii munu defal mu saxal ko te bu ci seytaane am mukk aw yoon yàlla bu ci seytaane amoo yoon yàlla bu ci seytaane amoo waye xawma ku santu bay waye nu war nanoo sant nak de waxuma waxi batin de waye li day man nga wër bam mu kap te do gis len lu mel nii te nun ñepp ko dund nun ñepp ko xam amna na bokay wax dañuy defé da ngay par par lo wala da am lu la tax di wax waye ku fi dik xam loolu mbax yàlla la tawfiq serigne ci do ndax fi day ku fi dikk yëg nun ñëpp bokk nañ dolli ko ci sama bopp laay tàmbalee man mi ngeen defee maa leen di dolli dolli ngeen ma bu wér bu wóor nanu bokk ak wax alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi rabbil alamin tey ñaan yàlla mbooleem yéene am ci lislaam yépp nu jëf ci lu kawe sunu jot te bu ci pakk amul yoon bu ci ndog amul yoon nañ wér pelet am wërsëg bu lew te lépp nu delloowaat ko sunu borom subhanahu wa taala yàlla nanu ci yàlla dimbali yàlla nanu ci yàlla dimbali yàlla nanu ci yàlla dimbali sant nañ ñëpp gërëm nañ ñëpp sunu xol sedd na guy Mbàkke xam nga ko sant bi waaye man mii man ni mel maa sant yàlla man sama dund képp ci laa ko bëgg fa yéene sant ko di ci ànd ak yow xam nga ku santul waaye man sant naa yàlla baax a baax na ko man mii hmm. xam nga li ma la wax xam naa li ma wax man sant naa baax a baax bu baax li ma la wax nag yow xam nga xam la xam naa la xam nga ko dem ba taxaw ci bu ñu doon wax pour wu taxaw di golli ko tëjëm saw doon jàpp sa loxo ne la siirato lu bokk ca loola soo ko doon misaal noonu lu demee xam ne li wax nag xam naa dimbalal yàlla tii damay fessé nak nak ni ma leen di soñal leg leen ngeen gis may def lool day mel lu gis ci yeen ci ci ci walu bu mëna doon yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam suñ borom daf ko waxal waxal rabbi sidni ilman te gis nga fi ne bu mo génnee ci biir yoré wat ben kan ak diko joxé ci biir joxé gi dana ci jëlé xam ko bari donte ki ngay ki lay seen mom day japp ni yow da ngay joxé rek dama lama ci ca ci dolliku man ak suñu borom rek ba boo nekkee ci tool yi jëf yi may jëf yëpp loolu nag mooy li war a am bu leen jàpp ni sëriñ boobu dafa war a toog rek wërta yëngu wërta di def lu baax kenn du ko doyee lu baax kenn du ko doyee Omar Ibn Abdul Aziz bi mu demee ba nga xamante ni moo téye lislaam bépp ci loxoom nga xay boobu réew yu bari da nga leen di boole mu yilif ko dafa toog ak benn nit bis di waxtaan ba nga xamante ni waxtu wi li doon waxtaanee ci mbir jullit ñëpp la sondel biñ talib ci alawi ci baytul mal lako jële bi nga xamanteni ne waxtaan wi jeex na dana ko ñu bëgg koko bëgg dugg ci beneen waxtaan dafa jugal bopam dem fay sondel bi mu ne ko ndax mënu ma woon a wax ma fay sondel bi mu ne ko bima ma jógee xomar laa bi ma fayee sondeel bi ba dikkiit xomar laa dara soppiku ci loolu lañu wara dund la bu jàggee ni sëriñ moomu daa wara a toog fee rek nit ñi di jëf rek yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa na am na sahaaba yu àndaloon am lu ñuy war a def كان انا وتي مات كان انا ديف لي نا ديف لي يونت بن انا وتي مات كين كو تي نيك دال اندي نا دارا تيام اندال لول نك لا كو نيبار روي واي بو نجي لي يونت بي ديفن لي نيبار نكو مانا ديف كيغا خامتيني تورونم لا ولا تورون سيرين بي داف دان سيدل بوبم اي بردي لول ليب داف كو دان ديف لغي دم نان با نيما كو دون واخا لغي رك خمغا يو بري بري بري دانكا ني مل ني من اي تيرغين سخ ماتليتون كو waxuma la nak bay jéema tek nit ñi ci aw yoon te loolu ma tabaxel la am na ñoon ña ngay dund ni sëriñ bi doon dund di ci doxe am na ñoon nag ñoo man rek ñooyam nañu wara dox dox leg leg nga dem ci béréb gis kilifa ko xam dal li yam sol naka da koy xaw nit ñi te loolu duy teggin dañu xuus ci biir nit ñekki dal loolu bi su ko def sëriñ sëriñ sama sëriñ ba sama sang ba amna kilifa gum doon seet bi mu yeggee dafa summi dàll yi ci bunt bi koo ko jël dàll yi bëgg ko dugale ci biir mu ne ko fee ma bàyyi ko fekk naa ci moom yu bari ci ni daan joxe war ma ak yónni ma sama kër gii si bi ma koy sañ sëriñ seex moom suñu sëriñ ñëw na fi ci bunt bi ci ci booy dugg ci weer ndaay wu ndaw ci li summi dàll yi ma jël ko ne ko dii di indi ndax man loolooy sama melo waaye dëni ma dii bàyyi dàll yi fii ma ko loolu les sols di def waaye man dem naa ci gis ci dëkk fi ma toog bi ma ñëwee dañu ma toogal ci kaw ma toog ci suuf ndax sëñ Tuubaa nag dafa am loo xam ne ni da ko fekk ci askan wi mooy gaaw a wattu alxuraan ci ko yàlla bind ak fonk kilifa bu ma ñëwee ci jataay damay dàq suuf ba ma toog ndax boo toogee léegi kat ku la mag dikk nga war koo joxub cër mu wàcc la dangay toog foo xamante ne kenn du leen la waaye fi ma toog ci wetu gis naa ko ñëw toog koo xam ne dàllam yi mu sol mu ngi xoos sama mbubb mi te ci basan gi ñuy jàng mi ci la ko jaarale te yooyu yëpp nag bokkutoo nañ ñu sëriñ bi daan jàngalee dem ba mel ni nit ñi ay xar lañ ci yow wala ak jur lañ waaw loolu kenn du ko def nit ñi ay doomu aadama lañ yàlla daf leen jox cër te ku la gën a xam yàlla gën laa warmaal doomu aadama gën laa bëgg doomu aadama gën laa sopp doomu aadama gën laa bàyyi xel yi doomu aadama yi ndax doomu aadama yi nii seen xarkanam yu wuute ñu seen jëmm yu wuute te yàlla dafa def ci ñoom lu ne nag waaw kon bis boobu yi nga xam ne noo ngi koy dëgmal la ma ci daan soññee amul dara lu ma ci yeesal mooy bis bi nga xamante ni tawfiix yi yëpp ci bis bii la bokk kon maa ngi soññ ñëpp ñu fonk ko te jàpp ko fa ñu ko man di defe bu doon koli korore yi koy dox di dikki bay boo dox dikk gis nga am na jataay yooyu jar na di dox ba yàlla moom la ca yoonoo jar na di dox ba yàlla ndax adduna moom lañu fi am rek ñàkk na la lay jural lu jeex ëllëg nag jataay yooyee nit ki war na cee sonn loolu war na cee def yitte ni ma leen koy waxee it ñu bari gëjë gi gënut de ndax man laajuma kenn benn fiite sësuma kenn fi na liggéey bi may liggéey ca Manarul Huda mën naa cee wax léegi ndax san xel dal na ko naa bi ma koy tàmbali kenn ku ci nekk ma ne la defal nangam defal nangam teg la aw sas waxee boo ko yalwaay dikk wuti doo ko yalwaay wuti waaye bari na ñun ba ñuy teg xeeroo bu fa dikkut fépp kenn diggul ma ni damay tegu xeer kenn diggul ma di ko wate kenn diggul ma di ko def dara ba ñu déqi gerte ga noonu laa ko ci def ku may liggéey loo it ca loola laa lay liggéey loo daara ja jumaa ji loolee damay jàpp ni tàmbali rek ci sama dund dama jàpp ne tàmbali rek rek rek dama ñaan yàlla def ci lu lu bari lu bari dama ñaan yàlla suñu borom def ko ci taxawal daara yooyu njàng ñoom sëñ Tuba rek lañ koy jàngal ak yaram loolu dong mooy sa bëgg-bëgg ooma oh, beneen bëgg-bëgg ci adduna beneen ooma na diine yaatu na leer na tukkee ci njàngaleem sëriñ bi loolu mooy sama xëggoon téef loolu mooy sama bëgg-bëgg ooma oh, beneen bëgg-bëgg mënoon naa tey su ma koy tàmbali ku ne ma ne la defal nangam te defuma ko de fi ne li tax ma di ko wax rek sans xel dal na ca te it man lépp lu ma leen digal damay fas yéene ku geesu gis gis gis ma ca loola foofa la muy nuur nuur lu ñagas ak la muy nuur nuur lu sori la tax sunu boroom def fa loolee am na lu fa loolu moom ña dikk xam nañ ko ña fa josaanoo it xam nañ loolu kon loolu moom coobaree sunu boroom bisu cant ji ni deugmal fuñ ko man di defé ma ngi ciy soññu ñëpp tey bëgg ñun ñepp ñu dolé gëna a góorgóorlu soppante di def lu jup di wax lu jup di Melo-Melo, jub loolu maa ngi koy dénk njaboot gépp ak fi waay mën a nekk ci biir réew ak ci ci té dëgg ku ca nekk jërul ragal kenn jërul ragal lenn jërul baxal kenn ku dul yalla dëgg moy njëkk te moy mujj yalla bu la dimbalé defal la taw xam dé ko sante sant nañ ñëpp nag sant nañ ñëpp ku ne la ngay jëfal yàlla te di ko jaarale ci noonu yàlla mi tax ngay jëf xam na ko yow muy jëfit xam nga ko man mii nga ko jaarale xam naa ko maa ngi ñaan yàlla yokk na kattan yokk nu ndimbal barkeel suñu yëngu barkeel suñuy jëf man kat awma benn xewutee lu may lee ma nekk rek mooy la ma nekk fu ma man di nekk ka ma fa fekk du koy kama ma fay fe ka ma fekk du ma koy ka fa fekk benn yoon du ko yemale ka ma fa fépp ma wax ka nga xayn deppatoo dem fekk kenn lu munta am mo sa ko mucc loolu yemale ko ko loolu ñu ko ñëpp xam foofu fu ma ñor la te fu sun borom tanal la jox na ko ñu diko fi liggéeyal fu ma ñor ñor ñor ñor ñor ak benen bir bu sopp yalla ndax yalla rek xam loolu bëgg na ñëpp xam nit ki bul tok mukk ta yalla dogal nga amu wër amu man tok ñaar fukki fan ta yalla dogal lu gisee man day loolu man ñimi mukk bu jëm ji doon ñaar la yàlla mi ma tiim seet na ni man loolu ñimewu nit nag am na ci loolu soo koy wax ki xamut dana ko jaaxal waaye loolu ñu daan wax naan sëñ Tuba ñimewut bar am na waxkat bu koy wax dafa dafa amu pay lii nag ay taw fee xam rek la ndax man kat lépp lu nit di jëf nag mu jëm si ci man wallahi xasim xam naa la la jëf la la jëf jëy jural te nattabloo ma ko te sikki sakkoo ma ko loolu moom lu ma xam la lu ma leer naññ la fii nu toog suma ma buñ tabax loo xayante ni nit man naa jaaxal nit man naa fay wàññi jëy yu bari man caa wax lu deñ mukk loolu baax ak yàlla la ya ak yërmandeem du ci man de yàlla nu yàlla yokk dimbali te yokk na tawfeexal ya. guddi gu mag nag mi ngi ñëw muy guddik mawlidin nabi guddik yonente bi sallallahu alayhi wa sallam gannaaw sëñ Cheikh Cheikh Yaxya mi laa ko dénk ca kër Mbay Fall moom moo ciy gën a mën a soññe waaye maa ngi ciy soññi ñëpp it nag waaw loolu maa ngi ciy soññi ñëpp ni ko sëriñ bi daan waxtaane sëriñ Saliou musta wax màggal te indiwul gàmm ndax fii mu ne gàmm dem nañ ba féetale ko ñeneen ñun ñëpp ay jullit lañ fu waay màggal yonente bi baax na ku ko màggal baax na waaye noonu murid yi boo xoolee dem nañ bañ féetale ko ñeneen te sëriñ bi gàmm nag la daan def màggal nag Cheikh Mouhamadul Fadal moo ko woote fii ci Touba ñu di ko def waaye sëriñ bi moom Cheikh Cheikh ñëpp gàmm ji njëriñ lañ ko daan def toog di gàmm sëñ bi di séddaleel boppam benn yi kon sëñ bi moom moom la daan def dem nañ nag ba màggal gi ñu woote Touba tax na mu dem ba suul loola ba bu nee gàmm feneen la xel yi xalaat waaye doon fii waaye sëriñ bi gàmm la daan dundal bopp nga xam ne weer wi bu ma saa teru ndax koy tàmbali ba ca bis ba ay berndeek foo ko gis ma ngay ree tab gi dikk lépp ñëw kon loolee lu mat a jàpp na lu mat a fonk la yàlla nu yàlla dimbali te ki toogab jataayam Cheikh Seydil Mokhtar suñ borom may ko gudd fan may ko wér yéene am ak naal yi ci lislaam yépp suñ borom defal ko ci tawfeex ak ndam bu mott li ko gën nga rafetee ne am te ne ànd ko moom ak njabootu Serigne Touba gi ak jullit ñëpp ak fukki képp kuy yëngu ci diinee fu mu ci mën di yëngoo daal lam cay yëngu yàlla ko ci yàlla defal ndam te seytaane sant nañ ñëpp sant nañ ñëpp xol yi sedd na guy fi xol yi àgg ci sedd kenn mësu koo weesu ndax bokk na ci sant day loo def ren su déwénee buy jubaat danga naan ndax goog daaw ga dana mel dana mel a mel noonu yàlla feeñal loo xeeti danga naan lii te loolu ñëpp sedd nañ tey ku fi ñëwoon daaw defoon meloon daaw mënatuta ne na waaye tey jii man day sama xol gën naa sedd lol guy yalla bi mu waxe yonent bi da ca tek bi yonent bi waxe nit ñu bax ni dañ ci tek dañuy leer laat waxe sun borom rek assalamu alaykum rabbal wa rahmatullah kon ni ko sang bi waxe legi rek ab fatil la muy guddi gu tedd gu màgg googu ñu ko daan ñu koy amal fofu ci kër may fall ñu ko daan amalé kon dañu ñaan suñu borom yobbu ñu ci ak jamm dañu ñaan suñu borom def li fi ñu ci ag ah, yépp bépp santaane bu mëna def ci eh, suñu ak suñu borom ah te mu sant na ko léegi borom eh, dinu lo ba ñu ag ci bis boobu ag ah, ci ak xol yu sel àgg ca ak euh, ak wér gi yaram àgg ca ak ak xéewal yu kawe jaay muhammad rasulullah sallallahu alayhi wasallam kon daal ñoom ci soññi ñëpp waaw foofu ci kër Mbay Fall nañ ko daan amale rek salaamaaleykum wa rahmatullahi wa mbokk yi lii la leen groupe Maoul Hayaat communication indi leen ci bésub màggal fukki fan ak juróom-ñetti ci weeru safar ci atum junni ak ñeenti téeméer ak fanweer ak ñeent di leen jox dig daje ci beneen jataay ñu ngi ñaanala cheikh ahmadou mbàkke maawul xayaat yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wër tey sàkku ci képp koo xam ne seetaan nga lii nga ñaanal ko mu yàgg fi lool te ànd ak wér asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu سبحانه هو العليم وصبور بإلمه بارز كل كبور سبحانه هو العليم وصبور بإلمه بارز كل كفور عادته التوراة والإنجيل وفي إماتك والتفضيل لستم على سلسال تعملوا بما بي وساكم المفتنون